taxawaalu ji dafay bëri xadi mhm. loolu benn la beneen bi ci des foog ñu indi lu alternative te ñu jéem a jàng dund gu yomb ndox dafa cher Sénégal mhm. gortu ndox yi jar cent franc am na ñu koy def pratique na neex naa jëfandikoo guddi bi moo gën a neex utal soglay mhm. te mënees na koo jëfandikoo naneen mais xat yi dafa cher ci cent franc moom nañ ko def fukki dërëm doo xam nag lu mu coûté usine bi koy dafa xëy na mais ñoom nguur gi bu fekkee bëgg nañu fi jëlee usine yooyu nañu toog waxtaan ak promoteurs yi nga xam dañu investir seen xaalis chinois yi dafa euh, unité yooyu mun nañ leen proposer yeneen unité yoo xam ne ay gurtu lay doon mhm. mais doo fekk nit ki muy liggéey di employé fukki nit nga xëy xëy employé fukki nit de façon directe ak téeméeri nit wala junni nit de façon indirecte parce que ndaw si jaay ci tali bi employé usine bobu la mais de façon indirecte di ci dàq bus bu nekk benn cinq francs bul fàtte loolu donc minimum di nga jël ay junni junni nit ñu dem taxawàllu ji mais nguur balaa jël décision bu mel noonu war na koo càmbar séq waxtaan ak waa euh, promoteurs yi nga xam ne investir nañu ci wàll boobu ñu am ay unités yi dafa ay gort yoo xam ni euh, nit ñi du ñu ñàkk seen liggéey mais xëy xëy xaati gu ñi euh, ñu fal la indi indiwoo benn solution laataa ngay falu nga fekkoon fi loolu ñu dama ko fii jële pour lu neex kan. gis nga environnement bi li koy yàq mbuus yi ci la bokk de. mais am na beneen yàq bu gën a bon mooy usines yi kenn utalul soglaay dëkkuwaay yi ñu teg ci kaw pipeline yi. mbaaw googu ministre bi dëkk ay pipeline fa yoo xam nit ñi dañoo dëkk ci kaw. Euh, ay usines yi dafa ay produits ak ay poudre nekk ci biir fi nit ñi dëkk. ay asib nekk ci biir fi nit ñi dëkk mhm. yooyu moo gën a bon ci wàllu environnement mbalit mi waxaale wuñu ko donc bu ñu ciblé mbuus yi mbuus yi mbuus yi ay kilifa mhm. ñoo jël seen i ay millions xamoo dañ ko leb ci banques yi wala déet investir ay junni junni nit du ci liggéey bëgg lu neex nit ñi nii nag bu taxee nga def déclaration boo xam ne itam day indi coow ci dëkk bi itam jaru ko nañu waxtaan ak ñi moom usine ndox yi balaa ñu koy tëj Euh, mise en demeure yi moom dem na ba noppi waaye Fatou Abdou ndax ñoom itam ñi moom unité de production yi boobu ba tey amuñu temps pour def reconversion. waaw parce que man dama jàpp na sax état dafa dafa dafa yolomal foofu aussi dafa yolomal parce que la loi a été votée à l'Assemblée nationale. 20 mm-hmm. avril 2020. Mm-hmm. tey ñu ngi ci 2022 maanaam léegi ñu yegg ci ñaari at yi. Mm-hmm. boobu ak léegi da ngay dégg rek ñu leen di xupp nga dégg jëwriñ ji ñu dénk mbir mi di leen xupp di leen dànkaafu mais c'est comme si dafa dañu nekk ñu am doole parce que ci la liggéey mais souvent dañuy utiliser ce prétexte au Sénégal que li mom moy sunu waar li lañuy doré, waar da gis mi aw mu fa di mu ay micro ak c'est-à-dire que dañuy nekk trop ci populisme wala sensibilité parfois euh, quand on veut faire les choses il faut que nga aussi ku ne plastique Sénégal 5 millions de plastique par jour pour seulement la région de Dakar plastique bob di dugg xadi ci géej gi tey jën yi lekk ko mu ñëwaat ci yow mi tay ñu jënd togg ko bu ñu mais baaxul pour la santé de la population baaxul ci environnement li nga xam ne wax nañ ko ci yëpp dafa baaxul lenn nak la nangu moy waxtaan mais je pense que waxtaan yi def nañu ko du ben du ñaar du ñett ak ñi nga xam ne les principaux concernés mm-hmm. ñom ak ministre bi li jos nak mom moy bu jaré ñu indi ci ay pexé ñu indi ci ay pexé mais duñu tek loi pendant deux ans après mënu ñu fexé ba am ci solution et que ñu tek prétexte tout simplement que né mom lañu yaakaar dañu ci embauché ay nit tout en sachant que né lo ci embauché ay nit nit nit dafa fekk né kooku wér-gu-yaramam c'est important mm-hmm. li muy noy c'est important baaxul gis na ko xamantene Modou Fall lañu koy wax depuis plus de 10 ans man mës naa ko jël émission Dóor muy xex lolu nga xamné mom moy lu jëm ci plastique yi déchets plastique plastiques combat parce soutien mais il faut tout simplement parce que xam ne contribuer pour environnement pour que ñu am un environnement sain parce que nous, dañu koy solo dafa am solo pourquoi dëkk tubaab faire di nooy nooy bu di dund ci environnement bu mais environnement bu amul nan ngay donc c'est très important ministère mu sévir. Mhm. ñu indi ci pexé ñi nga xamné ñoo ci yëngu également ñu respecter cette loi wut yeneen alternative yo xamantene dañ ci mëna door dóor waar. Mhm. Euh, Abdou mécanisme africain d'évaluation par les pairs ñu ngi waaj amal sen euh, éva ñu ngi waaj évaluer gouvernance ou euh, ressources minières yi fii ci réew Sénégal lolé taxone niki tay ci suba sax amalon nañu ap ndaje ñi ci yëngatu dal di ci porox ndollu ngir waxtaanee méthode yi nga xamantene mom lañu wara def ngir def sen évaluation dal di koy teunk ci juróomi étape rapport. rapport bi bu ñu ca noppee dinañu ko jëbal jawrin bi ñu euh, dénk réew mi di itam njiitu Union africaine ñoo du ci ak euh, Abdoul Aziz Sow Dabakh

dañu ne suñu yeneen dëkk naataango yi dañ ñëw nattal ñu dina am aussi beneen gis gis bu bees ak doxalin bu bees boo xam ne moom nga cee jëlee pour liggéey bi gëna a liggéey bi commission nationale de gouvernance moo koy wéyal. évaluation ciblée dañ koy def ci secteur minier léegi après dina war a recruter ay consultants ak ay panel experts waroo ñëw. Euh, jóge Afrique jóge ñu africaine ñëw pour xool euh, consultant li mu def ak finaliser rapport évaluation ciblée ci secteur extractif. rapport bi tukkee ci le ndaje dinañu ko jébbal njiitu réew mi moom mi nekk ci bopp UA mu mun ko présenter ay ñoñam ñu dellu si ci beneen euh, jàngat mu ñeel évaluer opportunité yi nga xamante ne moom la jigéen ñi am ci opération de maintien de paix atum 2020 jàpp atum 2022 euh, ñeel gendarmerie ak police nationale donte réew Sénégal bokk nañu ci juróomi réew yi nga xamante ne ñoom ñooy gën di boole ay jigéen ci maintien euh, ci mission yooyu li nga xamante ne maintien de paix moom moo ko tax a jóg taux de participation bi ba tey dafa néew ndax 3,19 le cent la ab étude la bu centre des hautes études de défense et de sécurité sécurité euh, ñoom ñi de di sëgg itam ci euh, réalité structurelle ak sociale yi nga xamante ne moom am ci biir force de défense et de sécurité yi di ci ak non ko bagayu ko stratégie yi ñu tëral ngir wàllum parité ci ñuy soltani te Nations Unies publié ko atum 2019 liñ ci namm mooy fexe ba jigéen ñi toll ci fukk ak juróom ci téeméer boo jël ci contingent militaire yi ñaar fukk ci téeméer boo jël ci unité de police yi fii ak atum 2028 saa si tolluwaayu jigéen ñi deful lu dul jege ñeent ci téeméer boo jël ci contingent militaire yi juróom ñaar ci téeméer boo jël ci unité de police yi. suñu culture ñun suñu bopp lu ñu xam mooy jigéen moom tenu wàllu góor la benn nekk gendarmerie wala ne veut pas dire que da nga war yor doole rek jigéen société bi dafa am yeneen laaj yu mu leen di laaj ay yaay lan ay jabar lan war a jouer boobu boole ci ci li nga xam ne mooy gendarmerie ak police seen liggéey dafa laaj temps. entre bu haute étude ci wàllum défense ak sécurité mi ngi amal l'enquête ci juróom-ñetti wil ci Sénégal ngir xam yan gàllankoor ñooy tënk jigéen ñi ci ñu mën a participer ci opération de paix yi Nations Unies di amal. li ko waral mooy jigéen ñi dañoo bareegul. ci gendarmerie nombre bi nga xamante ni actuellement moo fi nekk permettrul ñu atteindre pourcentage yi nga xamante ni moom la ñu ONU exigé. rapport bi ginnaaw résultat yi mu jeeb bi joxe na itam ay ndigtal institution de sécurité yi ngir ñu fexe ba jigéen ñi di gën di participer ci opération de paix yu Nations Unies juróomi benn téeméeri animateurs sociaux tàggat nañu leen recruter leen ci fonction publique bi fanweer ak benn chantier ñeel ay case de tout petit defar nañu ko ba mu noppi lu tolloog ñaar fukk itam tàmbaliwaat nañu ko ci atum 2022 bi euh, loolee moo tukkee ci rapport activité 2021 ñeel plan d'action bu année 2022 euh, rapport bi validé nañu ko niki tay ci suba ci ab ndaje boo xamante directrice bu agence nationale de la petite enfance et de la case de tout petit moom moo ko jiite woon mu di Maïmouna Sissoko ñu déglu cela dans le cadre de du renforcement ou accès bi qualité bi la gouvernance bi Travailler nañu ci ay en partenariat avec la Banque mondiale et la COICA déjà daf ñuy permettre ñu mëna a ci effectivité ou éducation religieuse am nañ programme d'éducation parentale qui nous aussi nañ ci mettre en œuvre en 2022 Nous encadrer euh, de manière juridique gestion crèche ba accompagner ko d'un projet de promotion ndax nak crèche dañ leen wara promouvoir dafa nek initiative bu baax bo xamantene dafa ànd ak li nga xam mom moy euh, autonomisation de la femme service yu bari demandé nañ ko inshallah ñu ngi koy étudier bu baax baax pour accompagner leen ci biir yenn service yi nga xamantene jigen ñi fa nek bari nañu ñu mëna am ben